salaamaaleykum salaamaaleykum nugum ah, ah. ma ne sa tiddaay bi topp nga si sa ndoxu bakkan de bakkan de <coughs> wallaay gis nga de di xaar sama gan gi rek bàyyi mbarik sama ganok daaw ga ganok lan xaara tuuti xaara tuuti damay bañ la amoon ñooro amaat fi ñu naan Kaaba Touba la jógeeg mbos ak ñii rek na nga def sant ka daan sant maa ngi doon for bët yow. yow waxuma la for nga bët waaye di ngëb sax bakkan. bal li ngay wax. tey sax yow. Baye Mbary laay xaar sama ganug daaw ga ku xees ka. daal nga ci nag. Hmm. màggalu suñ tubaab gi a soqee ko am ci gan. bu ma bu ma loolu waay yow ma ni. Eh, bu ma um de. santal yàlla. ñëpp danañ am gan kuy toog yaay am gan. waaye ñëpp dinañ am gan loo for lekk loo for noppoo di xëy di raatam raatam yi ci kër foo jógee nii sax yow. yow man ñaata laa mos lekk sa kër bëriwul. Hmm. altine ak talaata àllarba ak alxames. Hmm. ajjuma <laughs> yaa bi di yaa ngi ko semaine ba te yëgoo ko de waaye matul <laughs> Baye Malick da xaar ni léegi tey mu ñëw incha allah rabbi daf ne ma woon nag démb la bëggoon a ñëw sax waaye xam naa ne xalti xalti tey suba bi ñu déggante ma ko damay xëy nii léegi nag comme wàcc naag yooyu ma ne naa fërbët xaaraale ko bu ñëwee ma gàttandu ko rek teral ko xam comme Sëñ Tuubaa moom nee na nañ ko teralal gan ñi wàcc lale joxe ko nee na ñaari keef yi li commencé ci ginaar ba ci giléem nan ko ko teral waaye xam nga màggal gi nam daan demee rek gan ñi ñëw raakam raakam ji sëf nag yi xar yi kenn ku ne ànd ak sa morom amut takk masque amut laal alcool amut waaye ren gis nga sëñ bas discours bu am solo la wax waaye nag lépp ak mbas mi dugg ci réew mi lépp ak seen waay lekk um ko ba indil ñu lii. déggoo li ma la bi noonu noonu ko waxee. Hmm. noonu lañ koy jëfee. nee na képp kuy ñëw. ci hmm. màggalu Serigne Touba gi di màggal ak maamam bi. Hmm. booy ñëw. lépp luñ la sart yuñ la teg ci yoon wi. dëgg la na ko tegoo baag si. te booy ñëw. da nga indaale masque. ndeysaan waaw loolu dëgg la. te ni ko sëñ bi waxe ku ko deful noonu. dëgg la yaatoon tooñ sëñ bi. yaa sëñ bi sëñ bi moom li wax lee sëñ bas nee na na màggal gi danañ ko def nag waaye nañ koy defee ak nañ ko daan defee daa wute nee nañ takk masque yi te ba not maanaam yenn maanaam yenn kii yi daal comme comme nu ah, comme maanaam contact li mbëri def nu mu tudd. contact contact amul amul comme jékki-jékki jaxasoo ana waa Rissa Toll ana waa Ndar yooyu il faut interdire affect d'abord waskenk line immédiatement. te nag. waa ak lu xin melaw. waaw ñu nekk ci jumaa ji. dudd ngay jàmbar nag. waaw yow ma xay yow sëñ bi amul wax nga dëgg de sëñ moomul cuune <laughs> yaay nga ma de yaay waay <laughs> yaay nga ma de yaay ñoom mhm. nee dina nekk ci bunt jumaa ji dëgg la képp koo xam ne nag mhm. yaa ngi ñëw ci barab ko tedd ki wala yaa ngi siyaare ku mën di doon mhm. sa masque takk te it dafa am waa xidma dafa am lu ñu waxaale nee nañ way dégaraate ak way ceeni mooy ñoo ñuy takk de euh, takk yooyu rek takk ceen yi bonde naan maay booy diwwe yam li xaaye yooyu yëpp si interdit affect d'abord was kenka layen in ma jël defee li ni nee na màggal gii li fi ñëpp defoon lay def nee na du ñëw war a yokk di ñi li ay waajuram daan def lay def ndax war na laa leen 1895 biru ba ca ndar Sëñ Tuubaa waaxu ñaarem ñaarem yi ñëpp jël loxo bi teg ko ci jëw tubaab bi ni ko kasabte mu damirul umur kàcc nga 2020 sëñ Muntaxa eh xam nga li may wax ak ñii magum murit li wat waaw ñu wuy ma 18 18 jours des ci màggal ñu ñaam contact ma ak yow ñu ñaam contact bu yebal nga quarantaine sa bopp 14 jours rek xoolal rek daanoo nga waaye fi mu ne am nañ contact dalal dalal ay waay laa ilaaha illallaah nugum sëñ bu mag bi xajul say nopp bilaay wallaay salaamaaleykum maaleykum salaam maaleykum eh! jël lii defal ndànk defal ndànk dégg na nga Baye Marie ah. ah. arrièreal il faut distance avec un mètre cinquante waaw Cheikh pour ah, coronavirus avec 2020 sur le Macky Sall nangam nangam waaye nag di di xamee mu ko nag ji ji jikko xamee moo tax nga war a xam ne am na lu xew gan yaatal defal ndànk gan yaatal waaye gan tamit teeylu adduna du nii da ngay tey ci xew yi sëñ bi xanaa déggoo discours ci lan màggal gi ren daa amuk soppi yow amoo whatsapp ndax yow àll bi nga tol ak mboj ak góob ak lu ne nga ne bëggoon naa la yónnee wat uh, kii bi audio whatsapp bi nga déglu ko yow nugum waaw gi nga sa kër gi mhm. saa saak bi dong laa fi jëppil dëgg la tey aw ma toogaay mhm. ci biir dugg mooy dégg naa kër sëñ Saliou Guèye mhm. kër sëñ Ismaïla Mbacke kër sëñ Xaadim Mbay euh, kër sëñ Sidi Mbacke xelkom jël maa ay gëléem lañuy faat ay nag xar yee jalaa ñëw ganaar yee suqi yee saaf yee sàq mi seeñu ja <laughs> léegi na ay jali ndawal yoo xëy na si maanaam yàpp waag day jëllaa ñëw sëñ bi ma maaleykum salaam waaw waaw saa waaj ah, sànq maa ngi lay ziar waa dama am sama gan gi laay waxtaanal laay màggal gépp noos la ko teg rek da nga ca rëy mbaa dalu ngeen bu baax alhamdulilah tabarikal sama gan a Baye Mbaye ñoo fawandoo defandoo lépp waaye dafa xorom buñ gisantee daal te yabante loolu ndeysaan wax dëgg kay <laughs> kaña <laughs> ñoo dàq doo si ndax dëgg la ah lépp <laughs> bal fiiw fiiw njaga gartombe doomi ragal da ci jéggalu xam nga ñaar la moom daa yaakaaroon ni màggal moom sëñ bi saaf ko durus ci ndawal la ko jàppoon ma ne ko màggal gi ci la dee. dëgg la dëgg la. wallaay jërëjëf. wallaay dëgg la wallaay ndeysaan. bernde jaamu yàlla. dëgg na mhm. tàmbali nañu kaamil ci mbooleem jumaa yi. dëgg la. ndax xam ngeen Tuubaa li fi nekk. Mhm. ëpp na bu ñu ko xaymaa ëpp na ñetti téeméeri jumaa. ëpp na macha allah ëpp na lool bu ci nekk. incha des na fa ay limi alxuraan wàcc ngir yàlla dolli jàmm ci adduna kenn du suñ tub ak Sénégal gépp wallaay ndeysaan bég naa la hmm. maanaam yor sa course naan jërëjëf suñ tubaa rek moom loolu bokk na ci lu ko gën daam waaw suñ tubaa jërëjëf suñ tubaa moo fi ko gën daam laa jërëjëf jërëjëf suñ yàlla na yàlla defal la jàmm lu ko gën amul dëgg la baax na jërëjëf sang bi kontaan nañ baax li nga ko leeralal ko kii ku baax la kilifa la ah. bala maa gën di bokkut ak ci mag ñooñu sëti mag ñi raa ànd ak sëñ beeg yooyu ci néeg bi la ne sama wenn sama wenn sëriñ bu baax sëñ Cheikh Wàllu Cissé waaw moo ma booleeg moom ni ma fatal ma ko ndax nit ku jàng la ko sori ma fat ko waaye moom sax amut problème hmm. waaye mi ngi fekk nguur soo xam ne hmm. gàtt na bëri affaire hmm. ne ci kër gi looxu looxi sëñ bi toilette yi bu ci duggee balaa génn ñëpp a ci jàpp da ngeen ci toilette da nga dem toilette da nga kii de sa dikkër wax ñu naan waa Touba sa kanam sa ñaar téeméer yi fa laa ko bëgg da ngaa bëgg a jënd carte Touba kontaan naa ci yow yow ba nga fi toogee ba lépp kii kii yaay la Touba yow lekk naan ginaar xoolal kii nee na ñetti téeméeri sa bisaab ba nga jaay xanaa. bisaab balaa jaay. kii daa damm sa moral jaay naa ginaar. boo xam ne dammi moral yow lekk sa àdduna sëpp ndawal la ndawal dug dund del jaamu yàlla tey tuub maa ngi fa woon xam naa de am ngay bàkkaar de. waaw baax na sa ñetti téeméer yow dinaa la yóbbu Touba ca kanam nga dagg ci. Touba ca bu la neexee. nga dag dagg ci bu la neexee woote seen numéro jumaa ja wala xayra fa la seen seen si ne ñaar téeméer weeru ne murit dëgg la Sëñ a ñaar léegi yow du daggal ma ci Touba ca kanam de. joxaale ko nag sang bi. Ah, suñu duggee ma jox waa dëkk andi rek yow it boo këppoon kafe jàmbur ci yoon nooy def juróom benn téeméer nit daa ko wax. waaw waaw dugal ma ci Touba ca kanam ja rek yow. nak nga fay léegi nag wax ji du loolu. Hmm. fan la ñuy dal. néeg bee nag laa leen doon ba nga kii daaw. ba nga la noonu. mooy néeg booba rek doq ba doon seen defar naa ko de. néeg bu fa ginaar yi lal ga. dafaa nen sax nag waaye moytu ko boog bu ko. ginaar gaa ngi fa ba tey. waaw ginaar ga kay nit dëkk sëñ Bamba gii fu waay tëdd baax na ñun daal màggal man ndiis gi ni nag day boobu de par 42 a ngi àgg ci na kon kii la bu ko defee ma daggal ah, gën ko cee doon jàmbar yi moom gisuma ko damaa xam ni fóot ak baleeg passé dégg toog boo xaree sa ngaddu guro jox ko wenn bilaay ñoom ñaar dañoo yàgg nag ndeysaan maa ngi fàttali ko ba ñuy bëggante ñoom ñaar ñu deman di waxaari ndeysaan sama waa ji teg ci bu ndigër naan ko